نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي salaamaaleykum internet sans limite sn point com ñoo ngi amaan mbégte ak contentement bu baax a baax di dalal Cheikh Mourchid Fall moom nag lañ fas yéene siqal tey ab waxtaan bu yaatoo yaatu balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi rek dañ koy daal ci bàyyi mu nuyoo ko mbokki internet yi nga xamante ni ñoo ngi koy seetaan Cheikh Mourchid Fall ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la daal bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu. maa ngi nuyu àdduna yi wërngal képp góor ak jigéen mag ak ndaw. di leen boole nuyoo bi ñu yàlla boole te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di sant yàlla bu baax di julli ci Moustapha xayrul xalqi ki gën ci mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam. qaala taala wa tilka xujjatuna ataynaha ibrahima ala qawmihi narfau darajati man nashaau inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu isxaqa wa yaquba kullan hadayna wa nuuhan hadayna min qablu wa min zuriyatihi daawuda wa suleyman wa ayuba wa yusuf wa muusa wa haaruna wa kadalika najzi al muxsinin waa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyas kullun min alsalihina wa ismaila wa yasaa wa yunus wa luutan wa kullan faddalna ala alaalamin macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal site bi ak képp ku fi nekk di leen wax ne bismillah macha allah mu mel ni da ngay yëngu ci li nga xamante ni moom moo di seet ak ñaan yàlla ci seet gi lañ bëggoon rek nga daal ci dugg tuuti ban façon seet ngay def waaw seet <clears throat> bëri façon man ñaar yi ma ciy gën a jëfandikoo mooy li nga xam ne dafa dëpp ak sunna yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis jëlee am nañu ko daifal wax na ne man ista képp koo xam ne ni def nga istixaar doo rëccu ci seen mbir laa nadima man istaqaara wa ma xaaba man képp koo xam ne def nga istixaar ci sa bopp lépp looy dugg nga seet ko setantal ko doo ci am benn defet doo ci am tamit dara lu yàqu kon seet seeti sunna boobu dañ koy jëfandikoo ndax loolu dafay dëppoog li nga xam ne nii mooy sunna yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax maa xaaba man istaqaara wa maa nadima man istashaara képp koo xam ne yaa ngi dugg ci mbir di ci diisoo mën naa am nga dajeeg sawab képp yoo xam ne yaa ngi dugg ci mbir listixaar ko seet ko mën naa am tamit nga dajeek sawab ndax lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéeféer yi màkka yi bu ñu amaan soxla dañuy dem seen yàlla yi di sànni suñ buggee tukki laaj ko yoontu bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dindi loolu indi sunna istixaar daganal ko dégg nga moo tax maa xaaba man istixaara wa maa nadima man istachaara kon ñun li ëpp suñu seet mooy dañ lay fanaanoo dañ lay listixaar ñaan yàlla mu xamal ñu sa dey ak sa démb ak sa avenir ci lépp loo xam ne yaa ngi ko nar a dugg muy sëy muy liggéey muy mbir moo mën a dugg rek muy sa jëmmi bopp ji ñooy càmbat ko set ko soo ñu oowee téléphone ñu waxtaan ci ak yow laaj suñ borom lu ñu xamal sa jëmm ju ñu wax la ko incha allah. macha allah mu mel ni dangay dimbali askan wi ci lu bari ci ñaan yàlla bu njëkk bi di mel ni li nga xamante ni koo xam ni dafa jàng ba yee ay këyitam waaye wut liggéey mu am ko jafe ko lool. waaw sa loolu lu koy waral lu bari benn mën na nekk ci millier bi mu nekk. su fekkee ne milieu bi mu nekk ak rawaanam yu jubboowut su fa utee liggéey ba sonn tam du am mën na nekkee ci jëmmam ji moom kese su fekkee ne jëmm ji moo am problème bu doon am téeméeri diplôme yoo xam ne réew mi yëpp ko soxla fekk jëmm ji dafa yàqu yàqu na ñaar la benn mën naa yàqu boo xam ne rab bu mu judduwaalee moo ko def mën naam am yàqu boo xam ne tam doomu aadama nii moom moo ko ko teg kon su fekkee mu ngi gëstu di jégal ay dossier di déposé di déposé li gënoon mooy mu seet ku yàlla dimbale uññil ko xëy bu mu xam dara mu jëflante ko kooku dindil ko gàllankoor bi su ko defee doxam day gaaw Cheikh Mourchid loolu liggéeyam la ci képp koo xam ne ni loolu arrivé na la nga jéem ba sonn sottiwut yàlla ci mbaaxam na def nga gisante ak Cheikh Mourchid su ko defee incha allah loolu moom dana féetee côté moo xam nga nekk ci bitim réew yaa ngi dégg yegg fa def fa ay at say morom def ñaari at am kayit kii def juróom benn weer am kayit yow nga def fa fukki at amu kayit loolu kum dal rek ñu ngi wax ne gisante goog Cheikh Mourchid ndax su ngeen gisantee loolu dana ko régler bu baax a baax képp koo xam ne nii yàlla def na ñu jokkoo ci kaddu waxtaan ba tëral dara muy kayit mooy sa problème su boobaa incha allahu bu ñu jëfandikoo bu ñu jëflantee yow problème boobu da nga ko jox gannaaw ndax jaami yàlla yu nekk dimbali nañ leen ci loolu. gis nga koo xamante ne dem na ba foofu am kayit te mënta am lu muy liggéey am na kayit jox nañ ko kayit ci réew mi waaye liggéey moo ko të. kooku tamit wax dëgg yàlla moo xam fii la ci bitim réew ci biir réew mi moo xam fële la ci bitim réew moo xam koo xam ne ni daal dafa bëgg liggéey dégg nga su gisanteeg jàmbu xeebu bii nga xam ne wax dëgg yàlla yaakaaru dara lu du yërmande yàlla suñ jëflante yàlla dana la may loo xëy loo liggéey loo dimbalee say bopp parce que réew mi kat sëriñ ci buñ ci jogu dana métti parce que ñi xam jàng am ay diplôme te mën ñoo liggéey dafa bari te yàlla it am na sutura te yàlla am na ay tur moo wax ne fa lillahi l asmaul xusna fad'u biha yàlla am na ay tur yu rafet wax leen ci da leen ci ñaan wa zari ladina yulxiduuna fi asmaihi ngeen bàyyi ñooñu wa zaru ladina yulxiduuna fi asmaihi ñooñu ñoon di foyee turi yàlla yi ngeen bàyyi leen te ngeen jàpp turi yàlla yi ngeen ñaanal ci yàlla mbindee fi yàlla am na juróom ñaar fukki tur ak juróom-ñeent yaa ngi dégg ñu téeméeri tur la de ñu ñetti junney tur la yàlla am benn tur bi junne bi jox na ko Iisaa ak xeetam junne bi jox na ko Muusa ak xeetam junne bi jox na ko daaw juróom-ñeenti téeméer jox na ko daawuda ak xeetam xanaa téeméer moo des mu jox ko xeeti yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal leen juróom téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi mu des benn tur mu nëbb ko boobu mooy ismullahil azam te cheikh ci daf cee toog moo tax yëngal jamono daf ko yomb tabax nit daf ko yomb defar nit daf ko yomb tur boobu mën ngaa bejjaaw ci ut turu yàlla te doo ko xam mën ngaa màgget ci turu yàlla te doo ko xam ndax yàlla moo ne tur boobu def koo nëbb waaye nag am na ñu ko xamal ci ay góoram ñooñ xamal ko nag dépanner lu yàqu ci doomu aadama daf leen yomb réparer lu yàqu ci doomu aadama daf leen yomb jàmbu xeebu boobu mu ngi sant yàlla ne yàlla boole na ko ci mbindeef yooyu noonu incha allah ku ci jëflanteeg moom yàlla dana dimbale ci gàllankoor yooyu moo xam nga war a am jëkkër mënoo fexe ba am jëkkër góor gu ñëw ba yaa ngi dégg góor gu ñëw ba faroo am mu ba wala nga am war am jabar ndaw soo nopp mu dàq la wala nga bëgg nit koo xam ne sax ay mbokkam dañ laa xeeb ci sant wala ci askan wala ci raas wala nga bëgg ko sax xeebuñ la waaye ndaw si moo la bëggut wala ndaw si sax bëgg na góor gi waaye góor gee ko bëggul ndax ragal jabaram wala nangam ak nangam suñu waxtaanee ba gisante incha allahu rabbi ci turu yàlla yu mag yooyu Cheikh Mourchid dina la dimbale ci kattanu yàlla la lay dimbale ndax jaamanu dara dégg nga waaye yàlla mooy ki nga xam ne mooy borom kattan moo man moo am yàlla moom si la ñuy sukkandiku la ñuy ñaanee tamit du su alali bàyyi waaye turu yàlla yi la ñuy ñaanee ak alquran di ñaanee surtout yaasin di ñaanee ayatul kursi yu di ñaanee lixlaas ak xam-xam yi nga xam ne mag ñi baxee nañu ko mu nekk ci àll bi ndax yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne amul benn jàngoro lu dul garab ya nekk ca gox ba mën nañoo faj jàngoro jooju du dëgg loolu tamit bu arrivé mbër mi ci làmb ji kenn gisutul ko kenn déggatu ko bu arrêté arrivé football kat bi bu arrivé politicien bi wax dëgg yàlla ñu fal ko folli ko su ñëwee ci Cheikh Moussa incha allah dana ko samp ci place boo xam ne kenn dootu ko mën a tëdd te lii ñuy wax yépp bakkan amu ci cër waaye yàlla mooy ki nga xam ne moo ñu seede ndax toujours damay wax ne naouzu billahi min al jarati wal istixfaaf bi xuquqillah ñu ngi muslu yàlla di am am lu fit ak ñeme yàlla bay wax ci suñu gémmiñ gi luñ manut loolu yebewuñ ko yàlla nañu ci yàlla musal macha allah yàlla nañu ci yàlla musal mu mel ni dafa am ay feebar yu bari yoo xamante ni danga koy faj mu benn mu nekk benn boo xamante ni sonal na askan wi muy wàllum ngóora ak beneen ak beneen wàllum hémorroïde ak yooyu noonu yan jàngoro yan saafara nga ci am pour askan wi. bu ci njëkk ci wàllu ngóoram mooy dénk leen ragal yàlla ci li feeñ ak li nëbb ndax néew kàttan gi li koy waral lu ci bëri fomm yi moo koy waral yaa ngi dégg su fekkee yàlla dafa laa nattu nga am ñetti jànq yoo xam ne nii bokkut ak sa soxna fu nekk nga dem fa boo tëddee sa soxna ci kaw lal danga nga jéem loo man te doo ci man dara xam lu tax sa xel maa ngi ci diw sa xel maa ngi ci diw sa xel maa ngi ci diw xel moom nag di xalaat ba nga xam ne nekkut ak yow moo tax sa organe yi du jog du yëngatiku kon li ci njëkk mooy ragal yàlla yaa ngi dégg em si sa soxna doyloo si soxna jëkk jigéen bi tamit ragal yàlla em ci jëkkëram doyloo jëkkëram su ko defee ñoom ñaar buñ dajee dañuy nammante ku ci nekk la nga amee sama roon daf koy soxla waaye su fekkee ne ku ci nekk la nga amee yaa ngi koy joxe ci àll bi di ko joxe ci àll bi bu ngeen waree dajee ci kër gi sa waay dara du fa xew parce que day fekk ngeen ñi ñëpp seen réseau dem na du dëgg kon d'abord loolu lañ ciy njëkk dénk suñ bopp dénk ko ñëpp ñu ragal yàlla ci li feeñ ak lu nëbbu jëkkër am ci jabaram jabar am ci jëkkëram su fekkee ne nag loolu am na feebar bi arrivé la dégg nga déedéet sax da ngay foofu mu arrivé la boo ñëwee Cheikh Moussa dana ko dégg parce que deux mel ni nga dem ci jabar jàmbur mu yàq la yaa ngi dégg ñaareel bi muy jàngoro ju nekk ci yow ñetteel bi moo xam ne rab moo la ko def yaa ngi dégg wala mën am sax hémorroïde moo la ko def mën naa am tamit siti moo la ko def yooyu ñëwee Cheikh Moussa bala mu ciy jëf dara def koy vérifier ci baatin xool ko su fekkee ne ñeenti yi benn bi hémorroïde la mu dindi mu dindi ko ci si yoonu hémorroïde su fekkee siti la mu dindi ko si yoonu siti su fekkee rab la mu dindi ko faj rab bi dindi ko su fekkee loo xam ne liggéey la mu dindi ko dindi liggéey bi doon di faj feebar bi yii yëpp yàlla may nañ ci kattanam mën nañ ko dindi te du am benn gàllankoor ci ki nga xam ne moom la arrivé moom la dal kon képp koo xam ne loolu dal na la d'abord maa ngi dénk sama bopp ñun ñëpp ñu ragal yàlla ci li feeñ ak li nëbbu waaye feebar mënut ñàkk ku feebar boobu dal boo seesee Cheikh Mourchid incha allah damay wax ne dama koy wax toujours ne man ku may seeti ci néew kattan indiwaaleel sa jabar indiwaaleel sa jabar képp ku may seeti ci néew kattan booy ñëw indiwaaleel sa jabar li ma lay defal nga def ko tëdd ak sa jabar ci néeg bi maa lay jox néeg ngeen tëdd nga xool ko ba xam kattan dana ñëwam du ñëw te kattan boobu su ñëwee ci yow dootul demaati amul dama koy naan am kattan naanu ma ko du am kattan déedéet su ma la fajee da ngay wér parce que man li may njëkk a jëflante mooy rab bi lay rey wala ma dindi hémorroïde bi wala ma dindi siti bi doot di faj ngóor gi su ma ko defee loolu dootu dikkati sama baat nag lay yëkkati ci kaw comme arriver rek booy seet ci Cheikh Moussa indiwaaleel sa soxna soo ko mënul soo ko mënul tamit foo man a nekk ma yónnee la garab yi ci région Sénégal yi bu la garab yi fekkee foofu noonu jarul ngay bouger incha allah di nga am kattan dinga am wér goo xam ne nii loolu dootu la arrivé ndax loolu dafa yàq ak société bi am na ci tamit feebar yoo xam ne dafay dal góor ñi seen xawra yi di dellu am na si ñoo xam ne dafay dal góor ñi seen bopp xawra yi def ay góom ba nga xam ne ñooñu dañuy jeexal ci àddina bi duñ mën a tee sëy du dëgg loolu nag bu la arrivé moo xam góom yi la moo xam xawaaru awra bi léegoo-léeg da ngay ñëw fekk mu dellu da ngay ñëw fekk mu tuuti nga dugg ci douche bi sax di tiit ba xam ndax lii sa bos la wala du sa bos xam naa code bi koy waral ci doomu aadama ñaan naa yàlla ku mu arrivé ci réew mi muy mag muy ndaw suñ gisanteeg jaamu yàlla bu xeebu bii nga xam ne yaakaaru dudut irmande yàlla ak sukkandiku ci turi yàlla yi suñ da suñ dajee incha allahu danaa la dimbali ci loolu ci kàttanu yàlla. incha allah kàddu yi leer na nañ mu mel ni dangay faral di joxe ay nombo ak ay jaaro yoo xamante ni nit ñi dañ ciy gis seen bopp bu baax a baax a baax. waaw xam nga ndomba ci maam yi lañ ko fekk ñoo ngeen ndomba joo xam ne nii ñu bëri ci askanu Sénégal xam nañ ko ci askanu bitim réew xam nañ ko ku ko takk sa ndigg caabi du la féete gannaaw dégg doo dee mukk ci àll doo dee ci ndox fetal kenn du ko dóor mu dal la paaka tamit kenn du la bettee mu dal la xam nga réew yi moodu moodu yi dañ leen war a dimbale parce que ci Italie ci France am na itali am na naar yoo xam ne da ngay dox rek ñu jam la nga dee ñaata nit la ñuy dégg ne dee ci réew mi jam nañ leen fetal dóor nañ leen loolu dafay fekk ñoom protéger bi ñu war a protéger seen jëmm ji defuñ ko yaa ngi dégg dañ koy yombal nag pour dimbale ci jaami yàlla yi loo xam ne boo ko takkee ci ndomba gis nga yàlla dana la musal ci fetal musal la ci paaka ak jaasi musal la ci puso ak weñ musal la ci siso musal la ci accident boo xam ne nii oto wala avion wala gaal wala dee ci ndox wala àll incha allahu min rabbi yàlla ci kattanam ci kattanu yàlla boo daje jàmbu xeebu bi di Cheikh Mourchid loolu dana la ko jox ci yomb pour dimbale la parce que yéen yéenay seen aveniru kër yi ci Sénégal seen yaay yaa ngi toog yaakaar leen seen doom yaa ngi toog yaakaar leen kon liñ mën a dimbalante ak yéen ci kemtalaay liñ xam ba ngeen mucc ci fetal yeeg paaka yi ci bitim réew ak fii ci biir réew mi kon ñu ngi wax ne lépp loo xam ne nit soxla na ko ci xeetu ndomb yooyu boo ñu jokkoo incha allah yàlla dana la ubbi jokkooy incha allah rek dina leen ubbi ñu fàttali rek ni leen ñoo ngi séq waxtaan wi ak Cheikh Mourchid Fall ñaari numéro téléphone nag la yor mi ngi noonu ci écran bi ñu bind bu njëkk bi la 224 40 53 beneen bi ci topp 77 la ñaari numéro téléphone yooyu képp koo xamante ni rek li mu wax fii yitteel na la da nga koy daal ci jël rek nga woo ko ci téléphone bu soobee yàlla di ngeen jokkoo bu baax a baax ba tey rek ñuy tëj ci ab laaj ñu dégg ni da ngay li nga xamante ni moom moo di rab si doomu aadama. waa loolu wax naa ko toujours man sama maam Banga la tudd nit ñi xamuñ jinne la xamuñ nit la ba demee ci Saalum amul kenn ko mën a turbine Banga jinne la wala nit kooku moo jur sama maam sama maam jur sama baay sama baay jur ma muy xam-xam boo xam ne nii yàllaa ko ko mayoon ci Saalum ba ñëpp xamee woon ko ci wàllu rab dañu daan wax ne kër gi dëkk lu rab rëy rëy ak lu métti métti si doomu aadama sa doom. wala sa soxna wala sa rakk wala sa mag indi ko ci kër gi rek booy dugg moom feebar boobu day wér xanaa ngay génnaat mu ñëwaat ko waaye day wér kon loolu suñu loolu suñ xusuusiyee la ça veut dire que bu ñu doon wax ne ci liggéey bi ñu nekk lan moo ci spécialisé bi ñu gën a xam dañuy wax ne tomb boobu la mooy wàllu rab ci góor ci jigéen ci ndaw ci jànq ak waxambaane ak ku mën a doon soo fekkee ne yàlla dimbal la nga waaxu ba kër Cheikh Mourchid dégg nga incha allahu loolu dinañ ko réglé ci nu mu gën a gaawee rab moom dañ ci yëkkati suñu loxo ak musuwaar bu weex tàll di wax ne ku mu arrivé bëri na nag jigéen ñu amul jëkkër fekk ñoom la bëgg na kay ku am doom fekk am jëkkër te mënoo am doom fekk moom la bëri na tamit ku am lépp bëgg liggéey fekk moom la li muy li muy laxasu si doomu aadama bi moom rab dafa bëri te kon wa qabiluhu min aysu laa tarawnahum alquran mu ne mu ngi lay gis waaye fekk yow doo ko gis kon yàlla amal na ci jaamam yi ñu xamalante dara ci loolu Cheikh Mourchid ci jaam yooyu la bokk képp koo a ne indi na maladie boobu noonu ci sama kër incha allahu mbaa mënoo ñëw nga nekk bitim réew mbaa mënoo ñëw nga nekk ci région yi mbaa dangaa sori suñ jokkoo ci téléphone am nañu pexe yoo xam ne nii fépp foo nekk ci réew mi suñuy bagage mën na la faa fekk su boobaa incha allahu leneen ngay jàpp ndaat waaye du doon xeebatu rab su fekkee ne gisante ne incha allah. macha allah dernière laaj bi lii la woon mu mel nii dangay def li nga xamante ni moom moo di fal ak folli maanaam ci koo xam ne day yëngu ci wàllu football wala ministre wala woykat bu bëgg a falu ca kaw a kaw wala politicien boo xamante ni dafa bëgg jël ay ndombay tànk tamit. waaw loolu dañaan ci sant yàlla ndax kat dañoo dëkk ak suñu wayjur gis ñu bëri daan ko fii ci réew mi di ko fekk ca Saalum mu leen di cangat cang yoo xam ne da koy yëg ci kaw garab. am na ñu bëri tey xam naa leen am na ñoo xam ne xamoon naa leen ci gouvernement bii passé waaye li gënoon a xam mooy gouvernement ba nga xam ne nii ki santoon Diouf moo fi nekkoon ñu bëri daan leen jëflante góor gi ci lool ko bëgg ñu fal la ministre wala député wala président communauté rurale wala mairie ci jamono boobu léegi nag loola ba léegi mi ngi ci kër gi képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci xeetu politique mbaa nga nekk ci benn entreprise wala société boo xam ne bëgg nga fa avancement jàmbu xew bi soo ko gisee incha allah ak domaine bu mu mën a nekk moo xam footballkat bi la moo xam mboolem làmb bi la moo xam musicien bi la képp koo xam ne nii yii itteel na la nga bëgg a yokku nga bëgg a falu incha allah boo waxoo ba ci kër Cheikh oo ko ci numéro yii nga tudd incha allah buñ jëflantee ak post boo mën a bëgg su fekkee ne ak kooku mën a bëgg xanaa kooku ñëw ci man waaye bu ñëw ci man su kooku xëccoo boo ñëwee ci man yaa ci jot loolu nag du sama pexe waaye maa ngi koy sukkandiku bi qudratillahi wa awliyi ci pexem yàlla ak kattanam macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi rek nga tàggu internet ci la doon seetaan. sant yàlla bu baax tàggoo bi mooy ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla def ko jàmm ci Sénégal def ko ci Afrique def ko ci doomi Sénégal yi def ko ci monde l'islam bi yépp yàlla mën na lool innahu waliyu zalika wal qaadiru alayhi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضني هذه سنتي فارضى